أصحاب الجنة أحمد ربا كون حولي ألنا حصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كون حولي ألنا عصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كونه لي ألنا حصمني من العذاب ولنا صان جحات ستباق أحسنا لي ظاهري وباطني فحسنا حبي له وللنبي تبينا وليما اختاره قد عينا أشكره ثكرا يزيد يقنا ولي لا يفقي دواء يقنا بجلني مغن كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قال الله أجرا حسنا village bi nag ñu teg ko ci loxoy Serigne Saliou Dieng mii mu nekk chef de village bi yàlla def na liggéey bi mucc na ayib lool macha allah ñu ngi koy ci sant bu baax a baax a baax ndax it koo xam ni dénk nañu lu toll ci fanweeri junniy buntu kër te néewuñu immeuble bee yaa ko moom walla château bee néew na lu muy am ci réew ñu nekk. te loolu amut benn kër la am ma nga boqaat ma nga janatul maxwaa mooy kër go sëñ Saliou mayoon kon loolu yàlla ko ci suñu borom gën a fay ak ci barkeb sëñ Tuubaa la ca dolliku mooy sëriñ bi fii nga xam ne mooy boqaatul mubaarak am na fi ay nit yoo xam ne seen i ci moomeelu sëriñ bi lañ nekk waaye day mel ni li sëriñ bi def gënalu leen na ko sëriñ bi defee loolu nag yàlla ñu ci yàlla musal wala wala yasa bi la ni ñu koy waxee ndax ñun lépp lu sëriñ bi def baa mu dogal ko gënal nañu neex nañu te noonu lañ koy bëggee am na fi ñoo xam ne si ni léegam léegam ci biir njaboot gi dana am ñu bëgg ay barab yoo xam ne si nii xëy na duñu ko lañ cey soxla bayal ba ñuy soxla duñu ko amee ci duñu ko mën amee ci biir dëkk ba ñu ñëw ba fii gis fi lu dem ca sëñ Muntaxa mu yebal la ci sa jëmm ju tedd ji nga woo chef de village bi ni ko barab sangam di jox nañ ko kilifa sangam. am na fi amate fi bu ñu demee di ko wan kilifa yooyu léegam léegam ca koñ booba dana am ñu ca génn naan sëñ bi santaaniwu ko ak bu ñu fa sampee ñu sempi quartier bi ñu nekk di Taïba yàlla def na jox nañ fi njabootu Seex Abdou Lahad Xaadimu Rasuul ay barab yoo xam ne si nii boo xoolee ci plan bi juróom benn la kañ ko jox ab jàngalekatu alxuraan la sëñ Seex Lagan lañ koy sëñ Seex Jay ku ne xam na ni ci jàng ak jàngale la nekk bi ñu fa demee bëgg faa def bëgg koo bëgg faa def dara la ñu wax waa koñ ba mooy sempi borno yi lañu def indi fa coow loo xam ne si nii bari woon na lool ba yaakaar naa ñu ne am na ci dem nañ ci rajo yi dem ci tribunal ak lu nekk loolu nag sang bi li tax ñu koy gaaral xam nañ ni bu duggee sono bi mën naa saafaraw ndax fii yow la sëriñ bi di déglu yow la dénk yow lay def loo yow lay wax loo te lu ëpp ci liñ fiy def ci yow lay jaare kon moo tax chef village bi waxoon ni ci sama ci turam naa ci wax gaaral la loolu ba nga xam ne loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne ci daal loolu rek la ñuy xalaat ni maanaam boo fi accès danañ la ko gaaral muy loo xam ne si nii dana sooxeel liggéey bi léegi daan donte du ko yàq ndax suñu ci wàllu lu mu bëgg luy am lay doon dana sooxeel liggéey bi léegam léegam sëriñ bi village bi 96 lañ ko commencé sanc biñ ko commencé sanc 96 ak léegi dem na ci fanweeri quartier ak juróom-ñett chef de quartier yaa ngi nii toog maanaam am na juróom benn marché ñaari ñett yi fonctionnel lañ ñi ngi dox am na ñaari poste de santé am na yeneen yu fi mébét yoo xam ne ak seegut li ñuy wax Pakasen natt nañ fi juróom-ñaari kilomètres mu commencé ci mbaaru Madiyana yi ba ci buntu yu xonk yi fi ñuy wax buntu yu xonq yi xalaat nañ fee def brigade muy benn gendarmerie mais ak seegut moo bureau bi ñoo taxaloo mooy lii sës ci bureau bi foofu la ñu bëgg def brigade bi commandant bi ñëw na fi xool ko bañ bind kayit yi jox leen ko loolu moo doonoon li nga xam ne si nii yàlla def na moo fi amagul ci village bi village bi nag li ma njëlboonoon samay wax li nga xam ne si ni mooy ay manquement duñ ci ñëw ndax loolu xam ngeen ko te da ngeen ko def ni mu waree Touba du dëkk boo xam da ngay ñaxtu naan lii ak lii dafa manqué waaye dadi nit ki boo ko dee liggéeyloo fu mu tollu ci ab liggéeyam war na la ko gaaral di la ko leeral ñuy sant bu baax a baax di nuyu euh, monsieur le maire mi ak si nii di ko jox wàccuwaayam di sant sëriñ bi bu baax te ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàggal la fi bu baax a baax a baax a baax wéral sa yaram ci barkeb si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maa ngi dox ci baatum ndigal ndax sëriñ Bas da maa woo léegi na ma su noppee na nga ma ko tontul samay wax nag du weesu sëriñ Sall Dieng mi ak sëriñ Bas mi ndax ñoom seen mbir ah xawuma lépp waaye xam naa ci lu bari ndax kenn ku ne bala sëñ bi samp ci baatin say si da xaw ko baatin bi baatin bi da xaw ma mu fekk naa ko ndax euh, sëriñ bi sëriñ Sall Dieng sëñ Bas nee mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ndax nii nga ko gàttandoo koo doo ko ni gàttandoo loolu rek set na xolam wuute wuul ak jàppe nga ko ni si Muntaxa moo fi doon ñëw kon loolu ku mu déggu dara du la reg la ci des mooy suñ bés mi nga xam ne moom la suñ Muntaxa jiital ci lu bari ci lépp moom day ab samp moom fekke naa ko waaye booba suñ suñ Saliou da ko rek waaye man booba xawma lu muy wax man mi la ko wooloo ne ma suñ bas nga ko dégg ma ko ah, waaw gis naa ko dégg mu ne ma da nga koy làmb mu ne mu ma waa bàyyil noonu bu ko wax dara ci takkusaan suñu bas woo ma ca ginnaaw ne ma man de dama demoon Ndakaaru na mu sëñ bi bala may kër bëgg gisee sëñ bi ma ne ko ah bas mi nga doon wax kata ngoog moo may woo mu ne ma woo ko mu ñëw mu ñëw mu ne ko Moussa mi de maa ngi doon wax ci yoroon naa dama laa nam waaye dama ko doon bu ko mbaa woowul woo ma bas ne ko woowu moo de dama fee jaar rek bala mu bëgg bala may kër ga nuyu la mu ne ko fooy yéen mu ne ko puut mu ne ko ah puut googee day am naa fa suuf soo xam ne si mooy dàngo googu ñuy wax euh, dañu ma ko jox waaye dafa jafe lool dafa jafe liggéey ni ñetti téeméeri million lañ ma ci fayu te it xam naa ne loolu dana jafe waaye dama koy di sëriñ bi sëriñ bas na ko loolu moom booy boo nga jàpp ne sotti na dinaa déjji bunti dinaa déjji dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa dagg garab ya déjji déjji déjji ko bu maase la ko indi la matt mi Tuuba sëñ sëñ bi ne ko ah loolu dana jafe mu ko dinaa ko def ñaanal ma rek sëñ Bass jóg mu ñaanal ko ba yàgg mu nañ ko waa ndax xam naa ne loolu gasoil bi dana bari ma dimbali ko ci gasoil sëñ Bass dellusiwaat mu ne ko maa la wooluwaat kat ndax euh, damaa xam ne loolu gaasuwaal bi dana bari mu bëgg la ciy dimbali sëñ bas na ko sa ñaan moo ma gënal gas wal ma rek day di jóg kaala gi ma for ko jox ngir yàkkam mu yàkkam di génn kon nag looy wax lu ne nay doon lu leer kon nag sëñ bas bu jógee këram ànd ak ay xaritam ànd ak ay taalibim ah néew ma sax ñi mu gën a fonk waaye ñi mu taxool kon ndax suñu bas moom ñëpp la fonk ngeen kay leen gunge ma yow am nga taw feex na góor lu te déggoog moom te lépp loo xam ne li wax na la ko nga wéy ca loola bul suñu bas nee na nag te éggoo ci suñu bas moom bul ko gëm ndax jamono ji yàqoon mu la wax ci gémmi ñëm nag loola wéyul loola da xam ne waxi suñu mu taaxa la wax bul geesu man boo gisee sëñ Saliou damaa mas ne benn bis maa ko mas ne sëñ bi man de damaa xaw a jaaxle tuuti ndax li ma yoon daa bari ndax dépasse yi xar mu ñëw nga jox ma nawu ñëw nga jox ma bu ma rombee mu nuyoo nga ne ma lu ñu nuyoo loolu lépp jafe ci man mu bëgg na nga wàññi ko am loo xay da nga koy jox ñenn ñi mu ne ma Moussa dinaa la leeral tuuti yet yet daa ne ci yow mu ne ma yet daa ne ci yow boo gisee bu mooy wax ak nit woo la yet daa ne yow jàngoo waaye doo fàtte te fàtte kat laa te am na lu ko fàttee dara du ko jar loolu tax ma di la woo ngay seere li ci des itam am nga fit am nga fulla fulla ji doo def lu ko matut sama yëf te itam am nga fit waxaay doo ragal kenn ba jël sama yëf di ko ko neexale gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal Serigne Muntaxa xalif général des mu yàgg fi téwéer di ñaanal Serigne Sidi Abdoul Ahad mi waral ma toog fii di wax ci kàddu yi dëkk bi mu yàgg fi téwéer ak njabootu Serigne Touba gépp di nuyu Serigne Saliou bu baax a baax ci turu Serigne Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne moo ñëw tey jii di la nemmeeku si ci liggéey bi te fekk la ci barab bii nga xam ne moo comme ni ko sëñ Baye Moussa waxee ci la la Serigne Saliou loon ci seen kanam ñoom ñëpp teg la fi di la defloo di la dindiloo te yàlla dogal ñu rafetlu Serigne Bass ñu rafetlu jëf ji lool ak doxin wi ba tax mu jóg di la nemmeeku si yow ak njaboot gi fi nekk ñi ngi lay jox nuyoo bu mag di nga jox ko sa chef de délégué de quartier yi fi nekk yëpp ak kilifa mboolem kilifa yi nekk ci willaas bi ak bokki taalib yi fi nekk muy góor ak jigéen mag ak ndaw di la nuyu ci ak Moustapha mi nga xam ne sa ndaw la te lu bëree bëri bëri ci liggéey bi mu ànd ko ak yow di ko doxal ak mboolem ñi nga ko àndal ñoo ngi lay nuyu ci turu sëriñ bi di la xamal ne sëriñ Bass nii rek la ko suñ borom binde yàlla miy dogal def naa musa wax na ko ba mu jeex ndax li Moussa wax neexatula teg dara ci sëriñ Saliou moo ko xooloon ba doyloo ko seppi ko sëf ko li nga xam ne lenn la ci liggéey li ëpp ci liggéeyub Sëñ Tuubaa bi def ko ci ndaw bi mu demee gis nga alaaji baari ñëw feddali ko yal na yàlla dolli leeram sëriñ Sidi maxtar ñëw feddali ko yal na yàlla dolli leeram sëriñ Muntaxa ñëw ànd ko ak moom ku nekk xam na ni demee ak li xew ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ni ànd teg nañ ko ci seen kanam ñu nangu ko te nangul ko ko te doyloo ko loolu defe naa ne lu lu ñëpp xam na sëriñ bi ñu lay ñaanal rek. ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñoo dafa dogal ngeen dénk ñu ay bànqaas ñu ànd ak mbooloo di liggéey ci dëkk bi ñun ñëpp day war nañoo maase di la ñaanal yàlla guddal sa fan te wéral say cër ndax mbiram sëriñ bi nag li sëñ Abdou Lahad waxoon moo ko yoral boppam di seet ni ko koy ni mu war a doxe mu teg ko ca li ko ci ñor mu di ko doxal waaye bu fekkoon ne jamono yii ñu paase ak jamono yii ñu nekk suñ borom bi tabaarakala bindu la bindewu la nii mu binde ci mën a muñ ci yaatu ci xam ci ràññee ci ci ci mana defare maanaam di ci coordination bii nga la yàlla binde kon dana doy waar lool dana métti lool ci nit ñi te defe naa ne dana jaxasoo lool waaye lépp loo xam ne am na lëj ba ñëw ci yow ku ñëw jaaxle ba mënatul a dem wala xamatul fu mu jëm bu ñëwee bu toogeek yow fukki minute ak juróom dana yeesaat ci taalibe dana xam fan lay jaar ba dem dana mën a regle mbir mooma mu doon def nag dul lu yomb ndimbalal suñ borom la ak Serigne Touba moom képp ku mu yen dana la téeñal ba nga xam fi ngay jaar ñun day ci loolu képp koo xam ne daal yow nga benn responsabilité wala ngay taalibe Serigne Touba ci dëkk bi war na laa ñaanal yàlla guddal sa fante say ceeb ndax neex nga àndat mat nga jawrin xam nga ni ngay ji yore nit ñi ndax nit ñi lu nekk ngi ci ñëpp a mën a yem wala ñu ma ci façon bu ne bëgg-bëgg la seen bëgg-bëgg lañ am ak seen xel mu gàtt te ku ci am xalaat wala bëgg-bëgg xamatoo leneen lu dul loola waaye lu nit nëx-nëx ak lu mbir jaxasoo jaxasoo ak lu nit mm, eh, eh, stressé stressé bu ñëwee ci yow boo waxtaanee ak yow da nga ko xelal ba mu génn ci loola waaye dang ko ñaax ci sëñ Tuubaa ba muy doonaa taali bu bees teg ba bu demee mën a takkuwaat te loolu man xam naa ci lu wér a wér a ndax ba ba li arab di wax miraaran ñëw naa ko ci yow dema dema dem ba jaaxle loolu boo mu ñëwee nga dema ma ah defal nii defal nii defal nii régler mbir moom ma tegaat ma ci yoon wi ma mën a dem te maa ngi ñëpp a ci yam kon daal sëriñ Sall ci turu sëriñ bi mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi ñuy ñaaxaat ñu ñi nga xam ne daf ñoo teg ci barab yi ci turu ci ndigalal sëriñ Muntaxa te ndox suñ digganteeg sëriñ bi ñuy ñuy ñuy dem ci nit ñi nekk ci kanam nit ñi mi ngi lay sant di la gërëm ci liñ weesu waaye di ñu ñaax ci liñ jëm te ngir ka te di ñu ñaanal ngir ñu am ci ngërëmal sëñ Tuubaa yow nag am na lu ma lay wax jamono bu ñu dajee ci réunion yi nee naa la saal sëñ saal di ñëpp am nañ problème waaye yow yaa ci raw ndax yow day ñëpp jàpp nañ ne ku jub nga loo wax ci àddina nit ñi wóolu nañ la loo wax jàpp nañ ne lii lu wér wér la kooku nag wala ko nit ñi tegee yow am nga jafe-jafe defe naa ne loolu wax naa la ko ci biir ab réunion ci commune ba lu baree baree bari ci kanam chef de village yëpp kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëriñ bi mu ñaanal ñu liggéey bii nga xam ne moom la ñu dénk ci dëkk bi ñu di ko doxal sun borom may ñu ci ngërëm tayyabali wal wasana لي قاد في نومي سرا بتنا وبي يباحي كل من تفتنا جمال ربنا توجعلنا بغير مكر ذات نذء لنا نفى العزيز ما يجر الوسنا لغير نحوي ولغير ينسنا نفى الذي كيد الأحد وحنا شكيحنا في كونه لي وحنا حدمت بالله بنا من لعنا